mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla aji mbëggeel ji bëgg ñépp xam yoonu mucc wi mu tëral te di ko topp am na nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub bi ngeen sopp xarit yi xam naa ñu bari ci yéen ànd nañu ci li ñu naan bëti mbëggeel xoolatul melo ci lu wér am na nit ñoo xam ne am nañu mbëggeel ci seeni moroom ci misaal fajkat yi nekk ci kuréeli wallu yiy dem ci toolu xare yi di taxawu ñi am ay gaañu gaañu ñoom balu fetal yeeg kano yi ñuy soqi ñu leen di romb fu nekk teewul ñuy def seen liggéey ana lu waral ñuy jaay seen bakkan ci tooli xare yi nag li ko waral mooy seen mbëggeel ci nit ñi lu yéeme ngi noonu waay wante am na genn mbëggeel goo xam ne moo gën a kéemaaneeti mooy mbëggeelu yàlla ci waa àddina loolu sax moo nuy tàbbal tey ci sunu njàng mi nga xam ne mu ngi jëm ci mbëggeel waaw mbind mi nee na mbëggeel mooy jokkale lépp ba mu mat waaye ci jamono ju yàqu ji boo tuddee baatu mbëggeel rekk ñenn ñi seen xel day daldi jëm ci mbir yu kenn rafetluwul nitu àddina moo mel noonu seytaane dafay ànd ak moom di fexe jalgati xalaati yàlla waaye kenn mënula fanq pexey yàlla kon mbëggeel ci ni ko yàlla gise mooy tax nga am yërmande ci nit ba defal ko lu mu yelloowul baal ko sax safaan bi mu yelloo noonu lanu yàlla bëgge yërëm nu ba baal nu mbind mi nee na yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànk mukk xarit yi googu mbëggeel rekk mooy gi wóor ndaxte booba fekk na yeelowunu ko woon dafa nu woon yàlla tus lu mu nuy bëggee nii yàlla rekk mën lu ni mel laata nuy wey xarit yi nuy déglu nanu fàttaliku rekk ne bu mbind mu sell mi waxee yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp loolu tekkiwul ne yàlla dafa am soxna ba am ca doom mukk li tax mbind mi tudde yeesu doomu yàlla lii la dafa fekk ne yéesu ci boppam mooy kàddu yàlla gi ñëw doon nit dëkk ci àddina ci kaw la yeesu jóge ci jataayu yàlla tur woowu di doomu yàlla ji dafay ràññetle yeesu almasi bi ak yeneen yonent yépp dañuy wax ne doom mooy takkandeeru baayam ku gis doom xam nu baayam mel waaye ku xam yéesu itam ci dëgg-dëgg kon dinga xam nu yàlla mel ndax bëgg nga xam yàlla am diggante bu neex ak moom ba faaw kon nanga gëstu ci borom bi yéesu mi yàlla tudde doomam ndax bëgg nga xam mbëggeelu yàlla mi weesu dayo kon nanga gëstu ci yeesu ndaxte moom ñëw na ci àddina si ngir wone mbëggeelu yàlla aji kawe ji mbëggeelu yàlla mu ngi jëkkoon a feeñ ci li nu yàlla def nu nekk mbindeef yi mu gën a fonk ba yàlla sàkke nit sànniw ko woon ci àddina su wow koŋ te naqari lu jiitu yàlla di sàkk doom aadama dafa ko waajal lépp ba mu rafet lool te baax gannaaw gi mu soog a sàkk nit may ko xel xol ak coobare mu may nit lépp li mu soxla maanaam tool bu rafet garab yu naat lekk gu doy xel mu dal péex mu mucc ayib boole ci nag may ko soxna su jekk lool te yanj muy wéttalam waaye ndax nit delloo na yàlla njukkal ci loolu lépp déedéet dafa sax wone ak goreedi goreedee ma tax amul lu muy def lu dul di déggal seytaane mi ko defalul dara wante yàlla aji mbëggeel la te naka noonu mbind mi dafa nuy won ne bés bi aadama ak awa dégg dilee yàlla yàlla ci boppam yëgle woon na pexeem ngir tooñkat yi mën a dellusi ci yàlla yàlla aji seel ji feeñaloon na pexe mu bàkkaarkat yi mënoon a jaar ba jub ci kanamam gisoon nanu ni abel doomu aadama gëme woon pexem yàlla moomu ba rend mbote mu amul sikk ni sarax suy fay bàkkaar abel gëm na li yàlla wax ne peyug bàkkaar moo di dee te su deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am saraxu mbote mi moo taxoon abel am xel mu dal fa kanam yàlla xamoon na ne moom ci boppam baakaarkat bu yelloo mbugalu yàlla la wante mbote ma amul woon genn tooñ wuutu na ko mbote moomu mu rendi woon misaal la woon ci musalkat bi naroon a ñëw ci àddina ngir tuur deretam ni sarax buy far boru bàkkaari nit ñi benn yoon ba bu loolu jàllee ni ko yàlla dige woon mbëggeelam a ngi feeñaat ci li mu joxe musalkat boobu di doomam yéesu Kirist ni sarax loolu di pexe mi yàlla nas ngir rawale nit ci mbugalu safara gi koy xaar lan moo tax yàlla def doomam sarax te sarax boobu ngir kan la nun doom aadama yi noo ko waral ndaxte yàlla dafa sàkk lépp mu baax waaye ba musiba ma ñëwee lépp daldi wuute ak bu jëkk baakaaru nit jur coono metit naqar xiif mar wopp dee ak ñoom seen yàlla gis ne nit mënula génne boppam ci musiba mi ko seytaane tàbbal noonu mbëggeelu yàlla tax yàlla mënunoo seetaan mu yebal yéesu almasi bi mu wàcc yor bindu nit ngir defaraat li sunu bàkkaar yàqoon ci dëgg-dëgg yàlla aji mbëggeel la noonu mbokki déglukat yi liy firndeel mbëggeelu yàlla ci bàkkaarkat yi mooy ni ko aaya bi waxe yàlla dafa bëgg waa àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp di yeesu kirist musalkat bi ngir képp ku ko gëm am dund dul jeex te doo sànku mukk moo tax mbind mi nee na tamit yàlla firndeel na mbëggeelam ci nun ci li kirist dee ngir nun bi nu nekkee sax ay bàkkaarkat gannaaw kirist tuur na deretam nag ngir yàlla àtte nu jub rawatina ne dina nu musal ci merum yàlla kon nu gis fii itam ne mbëggeelu yàlla tax mu xettale ci doomu aadama yi bi nu nekkee sax ay bàkkaarkat noonu képp ku gëm musalkat bi yàlla wàccee maanaam borom bi yéesu boo deewee tàbbi àjjana amul xeej ak seen nag képp ku gëm la wax képp ku gëm sarax bi yàlla joxe ngir fay boru bàkkaar bi maam aadama ak awa defoon ba tàbbal nu ci dee xarit yi looloo tax yàlla joxe doomam mu dee ca bant ba yàlla baal na nu bor bi gën a rëy kon yow itam war nga am mbëggeel ak yërmande ci sa moroom dafa am bés yéesu ngir wone naka la ame solo nu am mbëggeel gi nuy xiir ci am yërmande ba mën a baale mu ne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 noonu sangam yërëm ko bàyyi ko baal ko bor ba bi loolu amee jaraaf ja génn gis menn moroomu jaraafam mu ko ameel ay junni mu daldi ko jàpp poñe ko ne ko fay ma li nga ma yoreel kon moroomam daldi daanu ci tànkam ne ko muñal ma dinaa la fay waaye moom nanguwul mu dem tëj ko kaso ba keroog muy fay li mu ko amee lépp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 noonu la leen yàlla di def bu ngeen baalul seen mbokk ak xol bu sedd waaye yow naka nga mën a jekke ba am mbëggeel googu xëy na jéem nga ay yooni yoon waaye doxul danga tàmbalewul fi yàlla bëgg nga tàmbalee fa faw nga jëkka a nangu njéggal gi la yàlla bëgg may boo tawatee ba fajkat bi seet la jox la garab yi nga war a naan ba wér garab yi duñu la jëriñ dara soo leen naanul faaw nga nangoo jëfandikoo garab yi noonu itam faaw nga nangu musalkat bi la yàlla yónnee bul gàntu fajkat bu mag bi bul sàggane mucc gi nekk ci almasi bi yéesu gëm na yéesu dee na te dekki ca ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale loolu rekk la mën a musal boo ko gëmee xel mu seel mi dina meññ mbëggeel ci sa dund ngay soog a mën a bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp lu ko moy dangay sonal sa bopp rekk ci misaal maa ngi fekk foto benn mbokk ci borom bi mu ngi tudd Bambey dëkk ca réewum Sierra ca xarab réewum Sierra Leone ba la ko benn way fippu fekk seen dëkk dagg ñaari loxoom waay fipp ya rey waa dëkk ba yépp Bambey ak yeneen ñetti góor rekk ñoo rëccoon ca waa dëkk ba ba fii may waxeek yéen Bambey ak waa ji daggoon ay loxoom ñoo dëkk ci benn dëkk mbaamba da koy faral di séen ca biir dëkk ba benn kureelu àttekat ya ca tribunal ba may ko pexe ngir topp ci yoon waa ji këtt ay loxoom waaye mbëggeelu yéesu gu nekk ci bàmbey tax na mu ne waa tribunal ba man de baal naa ki ma tax a nekk kuñ ñi ndaxte su ma ko toppee du tax samay loxo dellusi kon dinaa ko ñaanal rekk bàmbey mënoon na baal waa jooju nga xam ne moo dagg ay loxoom ndaxte moom ci boppam xamoon na ne yàlla baal na ko jaare ko ci ngëmam ci deewu yéesu Kirist musalkat bi xarit yi ñuy déglu ni Bambey baale ab noonam mooy mbëggeel gu wér di mbëggeel goo xam ne jógewul ci Bambey moom ci boppam waaye ci yàlla la jóge yàlla aji mbëggeel ji nee na am leen mbëggeel gi jokkale lépp ba mu mat ndaxte su fekkee ni damay wax làkki nit ñi ak yu malaaka yi sax te boolewuma ci mbëggeel duma dara lu dul ndënd muy riir walla joolooli buy kandang-kandangi su ma yëglee wax ju tukkee ci yàlla ma xam lépp luy kumpa ma yor xam-xam bépp te gëm yàlla ba mën a randal ay tund fekk boolewuma ci mbëggeel duma dara te it su ma doon saraxe li ma am lépp di bàyyi ñu lakk samaw yaram ba rey ma su ma ci boolewul mbëggeel duma jëriñ dara ku bëgg dafay muñ te laabiir ku bëgg du iñaan du kañu du tiitaru du def lu jekkadi du wut njariñu boppam du naqari deret du ñaaw njort du bég ci lu awul yoon waaye ku bëgg dina bég ci lépp luy jollil dëgg mbëggeel day baale lépp am ngëm ci lépp yaakaar lépp muñ lépp mbëggeel amul àpp léegi nag ñett yi ñooy sax ngëm yaakaar ak mbëggeel te mbëggeel moo ci raw kon mbëggeel mooy lépp te moom rekk ay sax ba faaw fu mbëggeel amul dara du fa dox ni mu ware su mbëggeel amul ci nit ak lu mu mën a def ci lu baax du jëriñ tus cooway bare rekk waaye yàlla du ko gis te du ko déglu sax moo tax kàddu yàlla bare lool lu mu nuy wax ci mbëggeel yéesu dafa waxoon ay taalibeem ne maa ngi leen di jox ndigal lu bees bëggante leen kon fàttalikul ne mbëggeel mooy tax nga yërëm nit ba defal ko lu mu yeloowul woon sax nga mën ko baal safaan bi mu yeyoo ni nu yàlla bëgge yërëm nu ba baal nu fekk yeloowunu ko woon lii lépp nag du mën a am ci sa kàttanu bopp faw nga gëm li yàlla seede ci lu jëm ci doomam boo ko defee dinga am mucc gi te xelum yàlla mu sell mi meññ mbëggeel dina wàllisi ci yow ba mbir yi di feeñ ci sa dund xamal ne tey jii nag la jamono ji yell ji tey la bésu mucc bi boo déggee tey ji xabaar bu baax bi bul dëgër bopp gëmal borom bi yéesu yàlla balla may la kàttanam ngir nga mën a bëgg nit ñi ni mu leen bëgge kon nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su ngeen amee ay laaj ci li ngeen dégg tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla wax ne lii mooy mbëggeel du sunu mbëggeel ci yàlla waaye mbëggeelam ci nun ba mu yónni doomam mu joxe bakkanam ngir dindi sunuy bàkkaar te bu nu yàlla bëggee nii nun itam war nanoo bëggante